开心 عزتي لمن كان لي بالدون وهو الشكور نصوري وتأييدي وإنزيلة الإله من الواسع وهام فهو النسير أمير لدى سيدي ومكسي وسيرتي خديما له وهو الخديم يمير المسيح كوني عبد خادم النبي وأمر البرايا للإله يسير شهوري وأيامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله قرب الشيء ستوري في الدارين ملي محمدا بالنسب ونصر وهو نعم ستور بزوري كتاب الله وسنة التي بها أهدمي أمانا وبزور قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي أمر المدير خسير كثير فجئت ببشر من وأخي سكوره عليه صفاء والمكوس خبور وفي القلب من الوالي ما أكنه لمينا به النص صدور لمن جاء بتيسير وهو القدير فاكرم به ربا نفى عني الغنى وساق المنادي والجناب أخير فنيت به ربا وليا يقول لي مرامي وإني شاكر وفقير أموري له فوت لدى الأعداء وهو بصير كالصلاة جديد فزى الخالق رولا الهلال من بما أو به للبر أنت النسير فزى الخالق تحجيله أو به بمنيتي فذاك على المولى الكريم يسير عليك صلاة منه جل مسلما مع اللسان نعم البدور ومنه صلاة ما سلام رد عني كل من سيدور على كله صديقي بالوان ربي كما قالنا في الخير حين يسير على سيف الفاروق من ربه ردا كبير كما قد التسديد حين تجور يسلونني وقت اختلافي مسيل الوهاب جل جلاله وما إلى خير الكريم مسيل تمسكت بالعبد المتين مرتلا وبالغروة الوسطى الذي هي النور به سرت من ربي والكنز والكبريت والسعد هنا به في نار غدا والسفور كتاب كريم من كريم مكرم لعبد كريم للخديم يمين كتاب مجيد من مجيد ممجد لعبد مجيد للكفور ma la الأمين ندى سيدي ومكسي وسيرتي خديما له وهو الخديم يميل مجير مسيري كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للإله يسير شهوري وأيامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله قرب الشيء ستوري في الدارين ملي محمدا بالنزل ونصر وهو نعم ستور بزوري كتاب الله وسنة التي بها أهدمي أمانا وبزور قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمدح الذي أمر المدير خسير الكون كثير فجئت ببشر منه أقضي سكوره عليه صفاء والنفوس قبور وفي القلب من الوالي ما أكنه لمينا به النص صدور القدير فاكرم به ربا نفى عني الغنى وساق المنادي والجناب أخير خليت به ربا وليا يقول لي مرامي وإني شاء ku baax ki ça va na nga def yaa ngi si jàmm baax nu mu demee nag wooy noo gisee bés bi tey moom gain dal jaamu quoi vraiment na xanaa ñu ñaan yàlla di ko def ay atte rek waaw magal mi moom baay jaar na yoon vraiment waaw neex na moom vraiment bilaay noonu lay demee nag hmm, ah am dara la baax na yàlla baax na xanaa ñu ñaan yàlla mu yokk xiiwal bi rek waaw non lay démé kon jaajeuf kon tanna c'est bon alaykum ku baaki na nga def ça va bien eh? ay ça va alhamdulilah yaa ngi si jàmm bu baax ça va alhamdullah am ayca ayca bisimilah am nga gisee bëgg bi tey waaw neex rek ma sha allah mhm. ay ya, ci ki ya. kii waaw ma sha allah waaw bisi moom franchement waaw def na ko naka daan defee daal mu kay li ni ñaan yàlla mooy di ko a ay at at rek ndax bisu Sëñ Bàmba bi moom wax dëgg neex yàlla lu ko événement bi ko gën a rëy ci kaw suuf amul franchement wax dëgg neex yàlla moom kay li ni ñaan yàlla moom chaque année suñu boobu di gën a dooleel poos rek di gën a yokk xéwal gi xam nga kon di gën a jublu ci mbir bi rek loolu daal la ñuy wax ci bisi yi moom waaw kontaan nañ ko wax tey moom suñu bés la ko yee noonu lay demee. ok merci beaucoup ah. jërëjëf jaajëf jaajëf yaay. xam mhm. salaamaaleykum yaay booy. na def. yéen a ngi si jàmm bu baax. maa leen di ziar. noo leen gisee bés bi tey. ak noo leen koy dunde wala da ngeen naa kontaan ba mënoo leen wax. ah booy noonu lay demee nag. mais loolu la ci mën a wax lu ndaw rek. yàlla nañ ko fekkee ay demee yu bëri. amiin amiin. Ah. mais eh, noonu lay donc ngi leen di remercier bu baax maa ngi nag liggéey bu baax kontaan naa ci yéen carrément quoi waaw di ñaan yàlla rek mu daak heure bi déwén mu bu ren quoi yee ñu fekkee ko ay ati at jërëjëf kontaan naa jaajëf sama jigéen yi jaajëf xam jaajëf ku baax maa leen di ziar sama <laughs> yaay <laughs> ah, si gi xool ma yaay ah ñu jégal na ko ah. amul benn problème ah. <laughs> oui booy noonu lay defee léegi ba ñu jàll si suñu yaay ji salaamaaleykum. soxna si na nga def. sant yàlla ça yaa ngi si jàmm bu baax. Ah, noo dundee mbégte bi tey. mbégte bi kontaan rek. yaa ma foofu yow daa da nga kontaan ba munoo wax de <laughs> oui noonu lay demee nag tey moom sunu borom bi moo woote quoi borom dëkk bi suñu tubaam mhm. loo ci mën ma ci mën wax lu ndaw rek ci bis bi tey waaw kontaan bi rek mhm. waaw di ñaan ñu fekk ko ay mu morom ba waaw eh, eh,

Fall kontaan nañ bu baax tey moom borom dëkk bi moo ko quoi yee ku baax loolu ñu ci mën a wax tey si bés bi tey ak li ngay yëg ci yow. waaw bis bi moom contentement rek. Mhm. wax dëgg yàlla kontaan rek. Mhm. barke Serigne Bamba. oui noonu lay demee waaw kontaan kon tey ah ne si waayu rek. comme que ziar na pare moom. Mhm. ne si ne si waañ da si yéen ñi. yaa ma gën a lay demee nag. waaw oui jërëjëf. ok jaajëf naa ok ñoo ma jaajëf nekk nañ ci dër mooy loolu. salaamaaleykum. ku baax ki na nga def. ça va bien. ñu lay ziar. ça va bien. noo gisee bés bi tey. waaw tey moom vraiment kontaan nañu. Mhm. kontaan nañu gàmmu moom vraiment yàlla na si jàmm. Mhm. dëgg yàlla ñu moom c'est la première fois ñu ñëw màggal mais moom bi ñuy rëccu mooy. dañ ma tere woon ñu commencé ko bu yàgg. wax dëgg yàlla incha allah à partir de aujourd'hui incha allah. Mhm. gàmmu moom dootuñ ko tardé incha allah. incha lay deme nag. mais vraiment kontaan nañu. jaajëf kontaan vraiment. noonu lay demee quoi. grand ngay vraiment ñun moom amuñ seen fay. vraiment oui loolu lay demee nag. en même temps di santaale Serigne bi rek. Serigne Touba. Uh-huh, uh-huh. yal na yàlla yokk leeram. amiin lépp liggéeyam. amiin amiin incha allah. jërëjëf Fall. jaajëf. noo si loo loo ñu mën a wax si dal bi tey. non dal bi moom vraiment neex na. Mhm. neex na vraiment aussi am na am na ambiance. Euh, mhm. aussi tamit euh, lekk yi tamit doy na. Mhm. lépp jaar na vraiment vraiment. góor ñi taxaw nañ jigéen ñi taxaw nañ mag ñi ah, taxaw nañ. ndaw ñi taxaw nañ. muy dëgg aussi mobilisation bi rafet na tisee bi rafet na. vraiment lii moom vraiment sag la quoi sag la vraiment rafet na vraiment. ñaan yàlla yàlla yàlla continuer rek incha allah. incha allah yàlla baax na. jërëjëf jërëjëf kontaan nañ bu baax ah. Jadi ku baax jaajëf ya. <laughs> salaamaaleykum ku baax ki na nga def ah c'est bon ne ah c'est bon ah ok Ama ma jël keneen eh. salaamaaleykum yaay booy. maaleykum salaam bien yaa ngi si bu baax noo dundee bés bi tey ah xanaa kontaan rek ah. kontaan rek la def ñaan yàlla ñu teewee ko at yu bëri borom yok xewali yi len yi yéen nak yeen yag yàgg fee man li ngeen di def ni man ngeen koy defal ndax euh ñëw magal tuba jot ngeen bàyyi lepp ñëw ci man dafa sedd sama xol bi ta magal gi yaakaana ak nu jot ku ne gis na ni mi demé day yokk waaye amut euh, tànk ginnaaw ah kon nak ñu ñaanal allah ji mi tam di jarbaatu borom kër gi nga xam euh, dara ñaawut dal waaw yalla nako yalla sam sam ay rakam yi muy àndal nag waaw ndax mënoon nañ seen nijaay dem mhm. ah ñu dem ñoom it waaye boobu léegi dañoo jàpp rek te bàyyi mhm. di gunge seen doomi nijaay yi mhm. fonk nañ ma teg ma place kon nag ñaanal leen rek yàlla yokk leen nag ñoo xam lu ñu bëgg yàlla na leen ko yàlla defal ci barke bis bu sell bi man nag dama kontaan lii moom ku mu doyut dara du la doy waaw yéen yàlla sàmm leen seen liggéey bi yokk lool nag ngeen dem ba am ay télé ay rajo rajo télé yu bari bëri bëri ci barke sëñ Mor Faasa baaxul borom lépp koy baax jërëjëf incha allah naka gisee liggéey bi nii nag yéen ci kawam nii waaw gis nga rafet bu baax ngi liggéey bi tamit leen benn yoon loolu moom teg nañ suñu bëti tamit ak ñun tamit nañ Dakar ba fii nii waaw maruñu mooy loolu noonu daal loolu yëpp daal seen sagonte la quoi donc ñu ngi leen di ñaanal yàlla tamit yàlla at bi delu si wat uniquement pour bàyyi quoi sunu grand bu baax la sunu papa bu baax la vraiment moom lañ xam quoi dañuy naan tamit ànd buy yàgg dëgg la tamit mais gis naa ne suñu ànd dëgg la donte nag mhm. moo ñu mag fuuf nag mais def ñoo def kom suñuy doom quoi to lolou gis nañ ko ñun ñep deug la kay non lay démé nak dëgg la kay ayoo tamit vraiment tamit suñu yaay bu baax ñu jógee Dakar ba fekk la fi woy nga dal ñu dal bu rafet mhm. bu yaatu rëccuwuñ ko benn yoon donc ñu lay ñaanal yalla dal ñu ci jub yalla nako yalla yàlla quoi amin amin way vraiment ma sha allah quoi amin waay jërëjëf yaay nek lañ ci jaam contane nañ ñoy jërëjëf ah, incha allah day baax merci beaucoup <laughs> jaajëf sama gaay na ngeen def. maa leen di ziar de. nu mu demee nag. oui noo leen gisee jour bi tey. ah journée bi tey. di nuyu suñu mbokk pël yi. suñu mbokk olof yi. suñu mbokk séeréer yi. képp ku fi teew ñoo koy nuyu. muy góor ak jigéen. waaw. oui naan pël. Mhm. himbe fula himbe fulbe. ah kala jooli do e nder dental he. ah yàlla waxoon nga jam tan e cellal quoi. yaa dégg. oui yéen nag instant bi ñooy ñaan. ñaan yàlla ñu fekkee ko si jaamu ñibbi si jaamu waaw amiin amiin waaw ñu ñaan sëñ bi yàlla nañu yàlla na yokk ba yokkute amiin amiin waay yooyu noonu la gisee liggéey bi nii nag ak mobilisation bi góor ñi jigéen ñi yëpp booloo nekk mi yéen ñi ngeen jàpp si liggéey bi noonu lañ ko gisee nii daal ak loolu lañ ciy yëg non affaire bi nag dafa dafa neex nag mhm, bilaay mhm. te kenn wonewul ci maanaam jiko boo xamante ne uh-huh. jiko bu doy waar la quoi mhm. te ñooy sant yàlla bu baax uh-huh. waaw te sant alaaji bu baax waaw mooy fi indi te mhm. mooy fi xamal fi mhm. te xamal lu ñuy jikko boo xamante ne bu mhm. bon la loolu instant bi képp ku fi toog liggéey bu set wicc la ñuy def fii nii muy dëgg waaw instant bi nii kay mooy sant yàlla bu wér ci liggéey bi ñooy naan gaay xana waa ca kanam ca kanam rek ca kanam waaw noonu lay demee nag ñu ngi sant bu baax waa Daaru TV quoi waaw waaw min jetti Allah min jatta bandiraaɓe halpulaar en fof calminimi kamɓe fof nice na jërëjëf content nana eymin beltima ko noon woni a jarama <laughs> jajef a ah. merci beaucoup content na o baax jajef <laughs> chef ñu ngi lay delloo ziar naka mu nag sant yàlla ça va noo dundee bés bi tey rek mhm. am taw feex rek magal gi moom ne xam na ni liggéey Sëñ moo tax boobu ba léegi bi ñëwee Touba ba léegi nekk ci liggéey bi rek ndax dañoo ñëw Touba bi ñëwee démb gis nga nekk ci yoon wi mu xawan metti lool xawan xat lool waaye nag bi ñëwee gis nga li nu gën a ni ñun dañoo dugg Touba rek bi ñu duggee Touba dem ni dañuy siara ci jumaaji ci ay 5 h du matin gis nga ni ñu waataay jël auto dem biñu démé rek dañoo dem ba police yu arrêté ñu nga xamni ne mënatuñoo yegg fénu fu jumaaji jumaa sa borom dal di dogal dal di soop ab taw waaw xaw nañoo toy xaw nañoo gus ndax ci biir taw bi la doon siyaar waaye loolu lepp nak sante yàlla bu baaxa baaxa baax tay nak ñu ñëwaat ni nek ni ci préparation añu magal gi suba ku ne xam na ni nag màggal gi moom bisu màggal gi du yomb waaw yaa ngi gis yaay faal yeeg ñëpp ngi toog ñoom yaay booy sama ñoom li yaay ñëpp ci waaw ñëpp ngi nii toog di xooli soble si di waajal waaw warul yomb de yi ñooy doomu ndayu yi boo déggee doomu ndayu alaaji yi uh-huh. ñoo nekk nii uh-huh. alaaji nga xam ni daa nekk kenn ci ñun uh-huh. nekk waaju baax nekk sun lool wax dëgg yàlla man nag c'est la première fois mooy ñëw di daal si fii màggal xëy na nag daanaa dem di gisanteeg moom gàmmu sax daaru baaxum laa gàmmoo daaw waaye nag nii la ko fay defee comme que nag chaque at mu defee ko nii ndax kenn mënut am fayam ndax nit moom tey jii nii bu ko neexat mu xëy jël ak moom dong def si ñaari nitam ak def si soxnaam ah daal di ñëw waaye defu ko daa gaare otom àndandoo ñëpp ba ñëpp yëg mhm. ñu door yëg mhm. nga xam ni yoon Touba yi ku ne xam na ni mhm. màggal ni mu demee day xat paas yi day cher moom nag ku la ni nag daay ma la ba nga yegg dalal la ah kooku mënatoo am fayam dañuy sant yàlla bu baax julli si yonente bu baax baax di ñaan yàlla defal nu jàmm defal nu ay màggal yi màggal di ñaan yàlla yàlla may ay soxna yu baax a baax a Amin nga xamante ne bi tamit amaguñu ay borom kër yàlla leen yàlla defal jàmm ñoom ay borom kër bëgg ay bëgg ay bëgg ay sama classe bi nañ wuti aawo waaw mooy loolu sa daari <laughs> merci beaucoup kontaan naa bu baax jaajëf jégalu te jaajëf ku baax ki def ça va bien ñu ngi lay ziar nu mu demee nag noo gisee bés bi tey waaw ah, bis ah, na de moom. waaw ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. waaw waaw ah, sant gars yi tamit ñoom Maam Diarra ay eh, ñoom alaaj ñoom ñëpp ñu ngi leen sant bu baax. Mhm, mhm. waaw ndax jàpp nañ ci bu baax ñoom tamit lay demee eh, nag. waaw noo dundee bés bi tey nii ak liggéey bi nii ngeen booloo yéen ak soxna jigéen ñi ak góor ñi ngeen booloo di def la même chose tey noo gise jour bii nii ak noo koy dundee instant yii nii. waaw lii day wane ne mhm. sëñ bi moom kenn la rek. waaw te fierté tamit nga gis ñi ñëpp mhm. àndandoo xam ne ñun ñi tamit xam ne benn lañ rek ñun ñëpp waaw di ñaan yàlla tamit yàlla na yàgg rek waaw loolu dañuy ñaanal ñun ñëpp tamit waaw noonu lay demee nag ah. yaa ci kawam de waaw ah, ñu nga de ñu ngi de noonu lay demee nag bilaay aca donc merci kontaan nañ bu baax jaajëf sama waaju baax bi <laughs> naamu nag ah waaye waxu doo jama paax <laughs> ah naga toujours ne xay koy atana rek ne a fela dal nam nam xaro yega esak keno journée xeke xaye moom content ami lool waaw ke moom a mosa yip deg i de mosa paax fo calel keke ne kenu mbog na nuun fo rew we fo goor we nene nu mboka toon jala leng ke xaro yega ten xaye en tant que xaye o refo foges xaye presque waamo lay xaye i ngetu xaye mene quoi vraiment ay sereer ay jola ay pël tout tout dal ñun ñëpp ñoo booloo teew fii tey alaaji tey loo mën a wax ci alaaji tey. alaaji kay alaaji dongo waag no na uh-huh. i de alaaji moom gid maam na paaxu na Wah, akan mana dede kan sama baik. Wow. Mereka apa kau? Akan ay apa humom? Apa dia pop? Ela mhm. jangan ini tangan bomban. Tapi kene. Eh. Grog dong wagno admirem nakai. Eh. Wow. Woi, di game aku rekwa. Tidak. napa ndap dum ko anok Tidak bagian jaga ndap dum nakai. Kaya nggak punya anak kerja kapam. Bila ikagar kerja kapam. Nyana kerja Amin amin wai. Wow, kerja kapam jadi ya kontan apa kau jadi cepat acan nocel kerek roga apa aku ah oh. bila awal itu belum tuh mau koral jadi kayak gimana Yeah loolu nga gis daal non sama jigéen ñu baax yi dañoo kontaan tey ba wax quoi man loolu laa gis ñoo ngi nii toog ñoo ngi nii toog mënuñu wax sax ndax kontaan quoi vraiment tey noo leen ma mën expliquer jour bi ak li ngeen di quoi sama yaay bu baax. kontaan rek nag bis uh-huh. bi moom. macha uh-huh. neexagul na. ñoo uh-huh. <laughs> mënut wax <laughs> nga. bis bee du ma pël de. Ah, lan nga. ma maay taawu kër gi. yaay taawu kër gi <laughs> ah loolu moom lu baax la quoi te lu rafet la tamit da ngaa gis nga kontaan de. Mm-hmm. mooy loolu noonu. xol bi sedd na guy moom. Uh-huh. macha allah amul. ñu ñaan yàlla suñu yaay ji yàlla bàyyi ñu ko mu yàgg fi wér. bàyyi ko suñu kanam mu yàgg fi wér ñaan alaaji nag lu mu bëgg lu ne yàlla defal ko ko. kontaan nañ trop ci moom. billaay dañoo kontaan ba mënuñoo moom gis naa loolu quoi. tey noo gisee liggéey bi nii ngeen bokk ak góor yi nii di liggéey la même chose tey lan nga siy yëg tey ak loo ma siy wax. lay sama xol set na trop moom macha allah moom dañu ñaan mu yok rek ñaan la suñu papa ji fam teud yalla yeeram ko xaar ko àjjana lay contane nañ mom lepp mom la mhm. lepp mom la moko fondu ma lay lay lay non lay demee ñoo wax xam nga mënu ñoo wax mom suñu xol non lay demee donc billaay lool la nak donc yalla na fi jamm sax li ngeen bëgg yeena ko xam yalla nako yalla yàlla quoi vraiment sama jigen yu bax ngeen tamit vraiment buñ ñëwé ba tay dal gis na gis nañ bu bax fi ngeen ñu taxaw quoi xiifumu xiifuñu maruñu donc dañ leen a mën a ñaanal rek ah tamit en tant que alaaji tamit tey lii yëpp tey moo ko waral ko quoi gis nga parce que. ah, ah. bëgg a dee fu mu toll dañu nemme ko rek billaay nañ trop ci moom nag. moom moom loolu moom amelu ko anam la quoi. bu baax na ku yëg nit ku am yërmande tamit. ku am yëg-yëg ci nit. te damaa gis ne tey doomu aadama loolu rek la mën a am ci ci gis nga mais donc maa leen di ñaanal donc li ngeen bëgg daal yàlla na ko yàlla defaral waa vraiment toogoo leen benn yoon quoi. bilaay gisoo may tooñ kii sama soxna bu baax bi tey ma koy naan mënoo noppaleku. mais lépp di lay ñaanal yaa balaa déwén yàlla may leen borom kër baax. ñoom waa gis nga ah xanaa da ngeen ma ci may kenn kay. waaw bu ah, xoolal rek ah waaw amul problème kon amul benn problème yaay kontaan naa bu baax. jërëjëf ah jërëjëf waay merci beaucoup. Ya. Ni iPhone lah ya, kan? <laughs> maa leen di ziar <laughs> si loo nekk. yéen a ngi si jàmm bu baax. noo leen gisee jour bi bés bi tey. Eh, mbégte rek mbégte rek. wallaay yàlla rek. oui sant yàlla bu baax. ak kontaan. Mhm. si tubaab moom dara ko bilaay wallaay. Mhm. màggal gi moom macha allah ñaan na de moom. ñii ñii nekk ci liggéey bi nekk ci so feer soble bi. bilaay computer baa ngi ne gars yi. ci diwaan waaw liggéey bi tey ngeen bokk ak jigéen di liggéey la même chose tey loolu lañ ci yëg instant yii nii. mais te man lii wóor na ma ne soo leen toggee seen kër doo leen ko def. mais a xam nga ni ñëw nekk gal rek tëdd gars yi di la benn rek du yoon da war a dugg si waañ bi quoi jàpp si liggéey bi mhm. lépp benn la ki ma xam mhm. fajar defar raxas bool yëpp mhm. barki borom daaru wallaahi wallaahi ndax Serigne Touba moo woote bilaa walaay bu dëgg quoi ay ay ay déwén rek mu gën neex quoi ñaanal waa daaru waa daaru TV ñu yokk ca kanam mais seen liggéey dafa rafet barke borom daaru non loolu moom dafa leer quoi bilaa walaay donc yàlla na leen yàlla taxaw quoi jërëjëf kontaan nañ bu baax nekk leen ci rek waaw affaire yi moom borom Touba moo waral quoi amul leneen jërëjëf sama gaay merci beaucoup jaajëf sama grand bi na nga def kii je pense nu ça va bien noo gisee bés bi tey waaw bés bi sant suñ tubaab bu baax a baax rek ñaan yàlla ñu fekk ay déwén déwén kenn bañ a amin. amiin amiin waaw kay ko la nga fas yàlla suñu borom bi nangu ko nangu ko bu baax a baax amiin amiin waaw man nag mënu ma wax quoi mais force ma wax mbir suñ tubaab moom moo demee noonu muy dëgg mënu suñ tubaab mais ñu ngi ziar gars yëpp suñ mbokk séeréer ak mbokk jóge Dakar ñëpp ñu leen ziar waaw di leen di leen baal ak di leen baal ak waaw noonu mënu wax quoi waaw noonu lay demee daa mel da ngaa kontaan de séeréer nga de ah dégg nga séeréer bu baax ah loo ci waaw lagi tuuti rek a ñaaƴo dexe ah. <laughs> xaga o no bes fe ke <laughs> mais fi o ndang de mbala ta gañang jërëjëf a Fall <laughs> merci beaucoup jaajëf tiya ah. eh, jaajëf sama leen di na ngeen def yéen a ngi si jàmm bu baax noonu lañ gisee bés bi tey alhamdulilah waaw ñu ngi sant yàlla di julli si yenente bi di di di di màggal borom bis bu tedd bi mhm. di Serigne Touba Xaadimu Rasul mhm. hmm, si tukkeem bu sori bi waaw yaa ma gën a xam ñu nekk fii rek di di di di di ko liggéeyal di ko pour am ngërëmam mhm. waaw ak ngërëmu yàlla ak ngërëmu yenente bi waaw loolu loolu kese la waaw waaw alhamdulilah noo gisee bés bi tey waaw waaw bi waaw bés bi comme li ma la wax rek ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñu ngi sant yàlla bu baax parce que moom moom moom loolu la waxoon pour ñu santale ko yàlla mhm. bis bu mu demee mhm. loolu loolu dafa am solo mhm. ñun nag loolu kese mission boobu rek ci lañ nekk nii di ci jéem a góorgóorlu nag di ci jéem a góorgóorlu bu baax uh-huh. waaw yaa ma ngënam loolu kese la yee noo gisee liggéey bi tey ngeen bokk liggéey la même liggéey bi tey góor yeeg jigéen yi ngeen di liggéey benn liggéey bi tey loo si yëg. waaw loolu nag dama siy yéeg nag nag mhm. nag lu neex. Mhm. parce que parce que waañ dafa metti mhm. waañ dafa metti suñu yaay ak suñu tante yi. ak ak suñu mag yi suñu rax yi dañ siy nekk mais ñun ñun duñ xam lan lañ lan lañ fay def lan lañ fay daj. mais tey jii nii. da ngay da xaw a njott rek luñ fiy daj. lu lu metti la waañ lu neex la moo tax nii ni mbégte la rek mbégte la rek. alhamdulilah. ñu fekk koy ati at waay jaajëf suñu jigéen ñu bax yi mo amuñu seen fay quoi vraiment ñoo ngi ni tok jàpp ci liggéey bu ak goor ñi ni waaw jërëjëf content nañ bu baax ah léegi ana ñoom ana seen baaxul bi nag loo xam normal tam baaxul zone baaxul bu leen animé seen baaxul comme jàng waaw bu ne son son lañu def parce que dama def lu bëri dama koy dagg waaw mooy la c'est bon aha ma jël la kagale Yeah. نسبتي لمن كان لي بالدون وهو الشكور نصوري وتأييدي وإنسيلة الهدى من أرواس الوهاب فهو النسير أمين هدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يمير مسيرية كوني عبد خادم النبي وامر البرايا للإله يسير شهوري وأيامي غدا لي شواهد بكوني عبد الله وهو الشيء ستوري في داري مدي محمدا بالنسب نصر وهو نعمة بزوري كتاب الله وسنة التي بها أهدم أمانا وبزور قصوري خلت والأهل عني تفرقت لمده الذي أمر المدير خسير